asalaamaaleykum chers amis internautes de la Saint-Louis TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am mbégte contentement encore une fois di leen dalal seen deuxième numéro bi seen émission nan ko waxtaanee tey nag ñu fas yéene ànd si waxtaan bi ak une personne boo xamante ni il spécial à travers ses œuvres d'art yi nga xamante ni mi ngi koy def si euh, suñu ville bi nga xamante ni moo di Ndar dama koy bàyyi rek mu nuyoon mu nuyoonteeg yéen présenté wu wax leen moom mooy kan Balla maa ngi leen nuyu. maa ngi leen di nuyu di leen ziar. et aussi di nuyu sunu mbokk yi nga xamante ni tey jii euh, nattu dal na leen ñu ñaan yàlla yàlla yëkkati leen et aussi ñu nekk ci l'hôpital yi aussi mention spéciale bi nga xamante ni dama koy def suma papa euh, Golbert Diagne nga xamante ni tey jii bu ma demee ba am sañ-sañu toog ci diggu ndar di wax moo ma fital may ñaan yàlla foofu mu tëdd ci marmi yàlla ña ko fa fekk ak ñi mu fay fekk yàlla na suuf sedd seen kaw oyof seen kaw leeral seen bàmmeel man maa ngi tudd Banda di initiateur projet bi ñuy wax récup plastique utile nek Pikine 700 ñu ñëw taxaw pour delloo Ndar taram ci fi mu euh Balla dafa am ben tendance bo xamanteni dañ ko daawoon dañ ko daawoon gis Saint-Louis moy que ni euh da nga daan da nga daan dox ci ville bi yépp pour nga am fo tok noppali sax problème la daan nekk ak aussi endroit yu bëri jardin public yu bëri c'était pas bien aménagé léegi loolu yëpp ñëw changer à travers seen euh, seen entreprise bi nga xamante ne Récup Plastique est-ce que mën nga ñu wax projet bi nan la juddoo ak nan la débuté. waaw projet bi du mu juddoo mooy xam nga ni àdduna bala ngay taxawal dara da lay fekk ci ay moments difficiles boo nekkee ci xat-xatu jamono si ngay mën a xalaat yow lan nga war a mën a def mais d'ailleurs sama développement personnel. bima xolé desi deseetuma dara sama aduna luddul lumay rendre sama askan Lolo tax eh, ma ni taxawal projet bi nga xam moy récup plastique utile li tax récup plastique utile dama na xol lu xamanté askan yu bëggatuñu ko te sonal na len muy mbalit mi ma jëm ci taxaw pour indi ci kom pour askan yu mën ci jariño te aussi naatalaat ndar ni mu menoon kon buma déggé bu baax fi ngay waxé récup Euh, récup plastique euh, yéen banc bu ma comprendre bu baax yéen a koy defaree à partir des ordures yi nga xamante ni nit ñi ñoo ngi koy jëlee si kër yi di ko sànni si mbedd bi léegi nan ngeen di def ba ba ba ba récupérer mbalit yooyu noonu pour pour liggéey ko. waaw banc yi ngay gis comme ni nga ko waxee noonu euh, parce que boo jëlee mbalit liggéey parce que bala ngay dugg ci mbalit da nga war a def de maanaam ay ay gëstu yu bari parce que toog naa lu tolloo ko juróomi at avant may lii. di def parce que lépp loo gis da am ay conséquences day am ay accident bon il faut nga jéem a xool nooy mën a éviter yow loolu ba pare mën a am loo servir askan wi mbalit mi buñ ko jëlee dañuy def collecte dañuy jël ay nit fay leen ñuy dugg di ramasser mbalit yi jëluma leen journalier jëluma leen contractuel parce que amaguma capacité boobu entreprise bu ndaw la boo xamante ni dafa am xam-xam pour développer Ndar pour naatal Ndar mais nag boo amul doole dangay wut pexe léegi ci biir pexe yooyu nag damay woo ay jeunes expliquer leen for leen plastique bi bu ngeen foree plastique bi su ngeen ñëwee ma pesé ko kilo bu nekk dama koy jëndee si ñoom cinquante francs bu ma ko jëndee am na tamit ay jour benn benn yoo xamante ne des bonne volonté ki ñi nga xam ñu ngi liggéey ak man du salaire parce que dañ may jàppale pour lii mën a taxaw pour ndar ñoom it bu ñu ñëwee ñu def euh, liggéey bi nga xam moom moo ci war ba ñu jël ko mettre ko au four ko bu ko fondree nag manam dafa daf lay jox parce que bo xolé plastique du kawsu plastique matière artificielle la léegi nak une fois nga xam source plastique pour mën a liggéey ci plastique bon d'ailleurs ci étude yi def yëpp ba xam li plastique buñ ko fondre léegi nak après dañuy daal di ñëw def euh, nos techniques kooku nak euh, c'est dommage duñ ko mën wax ci émission parce que c'est un c'est un don wala da ngeen dem jangi ju ko geustu ko xam na ngeen di utiliser matière bi ba génne ci euh, li ngeen soxlo wala waaw mën ni don la mais aussi gëstu la parce que euh, je suis un agent de maîtrise en génie civil servir au Sénégal entreprise du bari Je may ni may pour me ma mais jeunes bari mais à la place du ciment je suis plastique. parce que si boo xoolee ciment je la mais ce defar nit la xel la comme ñun mais kon ji ñun aussi pour mener liguer loolu foofu moom mooy base maanaam don la mais aussi daf fekk ma sabablu ko ndax yàlla daf nu fi wàccee ñun ñëpp jox nu xel jox nu xalaat dox jox bàyyi ma xel boo xamante ni dafa sëgg jox garab gii ñu tiim xel boo xam ci biir suuf la koy lay suuf si di dund waaw kon tey ji soo gisee ñun suñu rayon at li xalaatee kon fi mu toll nii nit ku ñuul nit ku weex nit ku jaune man benn ngëm-ngëm laa am sama àdduna man ni doomu aadama lan ay descendant Adams lan kenn ëppalewul kenn dara c'est que maanaam yoon yi nu jëm nag moo bokkul ndax tey jii kii kii jël ni moom moom tailleur lay def mais bu ci defee xelam nekk ci professionnel waaw mais ki ñëw ni moom it day day sàcc bu nee def ci xelam day nekk professionnel waaw kon rek ñu dañu jël suñu xel def ko ci mbalit mi mais mbalit mi yëpp pour delloo askan bi lu moom parce que ndar neexul ba neexul mais dafa salte Eh. moom c'est autre chose. te warul mel nii ndax moom mooy ville bi nga xam moo dàq ci Afrique waaw man nag du ma wax kenn dara l'essentiel ni ma sama papa Golbert waxoon rek ngom ma ni que naa mu ni ma nekk ci li ngay wax bu dee dëgg ci yow rek loo ci bëgg dina ci fekk. kon de tey fi mu tëdd mën nañ ni kontaan nañ kontaan na ci yow. non alhamdulilah rabil alamin loolu laay wax parce que man benn objectif laa am sama àdduna mooy marqué sama empreinte avant may dem parce que loolu la ma sama ni longue vie ak longue ne nit ku nek war ko différencier manam goudou ay fanta amoo lo servir sa deuk amul ben njëriñ mais même boudé as tuut lo yëkkati tek ka fi li durée mën na fi def plus de 50 ans parce que ben sachet plastique. du du am ben danger ci écosystème Non non non non non non parce que bo xoolee tay danger mën ci am parce que mbalit bi fi la nekkoon bo xoolee ban yi fi def ci une quantité de presque trois tonnes. voilà ñu ñëw fofu ban composition mën nga ñu wax lan la composition. Wa néna par plastique bon 100 pour cent plastique ya boo xoolee 90 pour cent mooy plastique mais am na yenn astuce yo xamante ni kooku nag moom mooy ingrédients yi médecins yi waaw médecins yooyu nga xamante ni kooku moom secret bi parce que sa sec maanaam bi lay bi ko kon aussi doo toog ci biir mbooloo di joxe sirru bi comprendre parce que yéen macha allah xam nga ni àdduna yëpp a di <laughs> euh, kon amna lo loo xamante ni du nëbb sax waaw mais mais ku si bëgg dara da ngay boo ñëwee tar tarbi ñun ubbi nañ bunt yi yaatal nañ ñëpp ñu bokk ak ñëpp daal. léegi bu nekk benn banc bu nekk boo doon boo doon à peu près si quantité plastique bi ngeen di soxla ñaata lay toll. banc bi yëpp day nekk 275 kilos. de plastique. deux léegi sànq yaa ngi yaa ngi wax benn point bu am solo mooy ñi ngeen di employé yaa ngi wax que ni employé wu leen mais da ngeen di yabal ay jeunes ñu dem récupérer plastique yi si balit yi indil leen ko mais est-ce que tamit yéen a ngi sóoraale santé santé bi seen santé yéen avant tout parce que plastique boo ko boo koy seeyal et tout ça am na ay danger mais jeunes yi ngeen di yabal ñu koy for est-ce que tamit ñoom dinañ am ay précaution yoo xamante ni bu ñu demee si mbalit bi di ramasser dinañ ko ñoom dinañ ko jël tey si yéen lay jógee. waaw parce que jeunes yooyu di ñëw mënu leen jox lu dul masque ak gant parce que doomu ndar ak feneen ak feneen ñun Sénégal ci mbalit mi la ñu juddoo fi la ñu màggee fi la ñu yeroo bon quant à ñun li ñuy def ñun. bon boo xoolee am na ay mesures sécurité yu ñuy jël parce que ku nekk pendant cinq ans ci loo xamante ne sama loxo yaa ngi doo si gis sax lakk te looy fondre muy ruy xam nga ni am na noo koy laalee lay da lay da lay lakk maanaam kon moo tax lépp loo ciy def da ngay gëstu conséquences yi nga xamante ne moo lay jural musiba boo dévier loolu rek xamal ni réussir nga bon kon li ngi jël mesures yëpp macha allah daal avec les moyens du bord. am ngeen ay tenues yoo xamante ne ngeen di liggéey moom ngeen noonu. soluñu casque parce que casque de manam pour chantier manam pour manutention là parce que du ñu gis lu bu nu bolé lu bokul parce que casque fo xamantene amna manutention ak gaay ñi ñuy yéeg ñoy ñooy soxla casque mais quand à ñun ñi nga xamantene da nek en plein air dem ngeen ci site bi gis ngeen fi ñu tok di liggéey. mais di ngeen am tenue yu ngeen sol yoo xamantene moy adéquat ak liggéey bi. combinaison bi ngeen gis euh, bu ngeen may défar bi ngeen tourner fofu di ngeen gis combinaison yi ñuy sol ak ay gants ak masque loolu moom mooy mesure de sécurité yi li si des nag mooy positionnement bi ak quantité bi ngay fondre par par rapport ak ventilation site bi nga nekk parce que tey jii boo xoolee man fa ma dëkk euh, boo doon dem sax li laaj ba xam fii ñu ngi fi lakk plastique da mos na mos ko yëg waaye te bëccëg laa koy lakk togg ko defar li may defar indiwaat parce que maanaam mesure de sécurité yooyu moom laa jël ba pare ba nga xamante ne réussir naa ko ma soog a ñëw nag ci densité bi so ñëwee ci densité bi nak nga soga daal di ñëw nak génne sa produit pour mëna am sañ-sañu taxawal ne li li la. légui suma comprendre bu baax sen emplacement fi mu nekk même bu dé ay habitation ñu ngi si wetam du du lor ben ben nit bi nga xamanteni ni mi ngi dëkk à côté. bon actuellement ni nga xamanteni dañu commencé fi ñu nekk ci site bi ñun on est très loin des habitations habitants yi sori nañ leen trop te au début man maa won woon sama biir kër te nit lu muy yëngu pour njariñam defé na ni njabootam la wara ñëk sam te def naa fa pendant 3 4 ans yoo xamante ne maa ngi sama biir kër di liggéey sama biir kër nee naa la liggéey boo gis dafa am xam-xam bu ci nekk parce que tey mën doon boo demoon fi ma koy liggéey mën doon ni à 3 mètres wala à 2 mètres naan fa ataaya parce que du la du la il faut nga xam technique yi nga koy liggéeyee waaw loolu moom mooy loo xamante ni jël nañ mesure yëpp habitants yi nag bon yàlla suturaal nañu boo demoon fi ma dëkk tey yi nga laaj fa ma ko commencé euh, déggaguma te dugg naa ci kër yëpp. ba xam plastique da leen di xeeñ et pourtant non am na ñi nga xamante ne ay kilifa yu fa ñëw fekk ma may liggéey mais accident ba ci site bi xamunu sax boo xam damay liggéey plastique parce que lépp looy def te amoo ci xam-xam da dem jàng ji ko may yàlla nag moo ñëw ci man. d'accord yàlla na ko yàlla gën a gën a yokk gën ko fuul. Euh, léegi yéen seen projet bi fan ngeen jëm ak moom par rapport ak ville Saint-Louis parce que boo demee Ndar quartier yu bëri. Euh, da fay fekk da fay fekk seen œuvre yi jardin yi ñu ko euh, est-ce que di ngeen ko def si yeneen parce que am na quartier yoo xam ne amagu fa lu euh, Langue de Barbarie bi mbedd kii bi booru dex bi noonu amagu ko ak est-ce que pare ngeen pour tas ko fépp si waaw soo gisee tey banc yi tegu fii dañ koy sante yàlla sante ARD Saint-Louis parce que nous ñoo un coup tay daanu mën a génne suñu œuvre teg ko ñu ngi waxtaan ak euh, maire bi na bayyi suma xarit suma confident muy Maguette gay ñu koy wax Loma Dieye N'ek sanc ba nga xam mom la jox lepp lu projet bi mom moo koy man dama don rek ko xamantene damay tok di réaliser des œuvres di teg kon ARD Saint-Louis mention spéciale à eux ñom ñoo ñu jàppale tay ba nu mën li mom bu fi bu togué après dina waxtaan ak collaboration bi nga xam koy

Reccu Plastique am benn initiative boo xamante ni moom ñëwul pour concurrencer kenn li ngeen di def baax na waaye bu ngeen tonnee jox leen ma mat def ka njëriñ delloo ko askan bi. loolu dañu si war a ñëw jàpp. ah ñu fi nekk aussi te bu nu mënee jàppale comme kilifa dëkk bi ndax li nu waroon def nan ko ay ndaw boo nekkee sa kër boo amee looy dox da tàggu kilifa gi wan ko li ngay def yàlla may na nañu mayagunu nag ñu am occasion pour toog. mais n'empêche œuvre yi avant nu koy génnee man souhaité woon naa itam mu gis ko parce que teg na ci bëtam mais nag olof dafa ni bët du yenu mais xam na lu bopp attan ndax comme comme ak euh, mbas mi am ci dëkk bi ñu ngi ñaan aussi yàlla nag fi yàlla jëlee mu am ci pàcc bu am solo kilifa dëkk bi di ci dox pour Sénégal yëpp ndax Séné euh, bu ñu wax rek ndar nañu wax Sénégal yëpp kon tey jii bu gisee œuvre yi mu tomb mu coïncider ak loolu euh, ñun dañ koy taaxirlu di ko xaar te xam na ni am na yéene

aussi maa ngi koy tàllal loxo. ñëpp ñoo ngi lay dégg. waaw ñëpp ñu leen ñëw jàpp si parce que ñoom ñëpp booy xool ndar moo leen ñor. jàpp gi yëpp mooy que ni yelwaanunu parce que góorlu nañu gëstu suñu bopp ba nga xamante ni kenn fekkunu ci. li naan ndimbal da say fekk loxoy borom yéen seen loxo ngi si biir. waaw loxol borom sunu waar la ñuy bay mais nag tool bi yaatu na illeer a ngi fi ŋoos ŋoos a ngi fi jaasee ngi fi maanaam lépp ci tool bi la waaw kon nag lu waay mën a indi rek teg ci. bon dañ koy sante yàlla kon ñi ngi woo képp koo xamante ni mi ngi fi mën sa jàpp mu jàpp ci yéen aussi suñu ay rak suñu ay xarit euh, tey su ma toogee ci plateau bi di waxtaan ak yéen bu njëkk la ndax seen ay nawle ñu bari ñi ngi ma koy ñi ngi ko doon souhaité ak man liggéeyaguma pour génn ay tele non xam nga olof dafa ni jëf tuxal na wax kilifa réew fii tamit wax ko kon ñun jëf nañu nit ñi gis nañu apprécier nañ et certes y a des petits réglages yi nga def lu faute de moyens. parce que ARD bi ñu joxe xam nañ ni arrangé mais comme que dañ am objectif pour defar suñu dëkk nañ ko jël xam nga ku liggéey pendant presque deux trois mois di jël ay nit à part boo fayee les collecteurs da ngay naan suuf. moyen yooyu moyen yooyu ngeen di fayee nit ñi seen seen seen propre xaalis. maanaam ARD moo ñu financé 50 bancs baa bu nekk dafa am prix bopp. loolu ngeen déparé. boo gisee tey jii bancs yi. am na ay socle yu ñu teg nii maanaam dama ko war a pavager parce que soo gisee lu tax pavager guma ko contrainte coronavirus bi parce que nag fi mu toll ni bëgg lu bëgg lu neex Sénégal wala bëgg defar askan mit lu tax ma nekk ci mbalit mi di buuju rek ba jëli fi feebar yóbbu ko yóbbu ko wàll ko sama njaboot aussi sama njaboot génn wàllaat ko askan bi kon fët bi ci man lay jógee looloo tax ñu toog comme ñëpp ni ñu toogee mett na si ñun defuñu dara mais nag dañ koy sante yàlla man ma joxoñ kenn parce que li fi wàcc yàllaa ko fi indi dañ koy sante yàlla bis ba mu ko fi jëlee mais nag n'empêche bu nu mënee gestu te xam ni tey la waxuma kenn maanaam ñay fecckat di way fecckat yeeg waykat yeeg bon les géwël yaa ñoo ñëpp euh, monsieur le président mi ngi leen di dimbali ñu gis ay jeunes yoo xamante ne ñi ngi def loo xam amul Sénégal parce que président bu demee ba toog ni zéro décès fekk nu ci ñun ñuy def ba génnee lii bon am naa yaakaar aussi. matière en plus matière bi nga xamante ni askan soxlootu ko dañ ko sànni mu. muy mbalit mi plastique. mën na yàq ndox mi mën na yàq jaw ji mën na yàq lu ne yéen ngeen récupérer ko génne si ay œuvre c'est vraiment extraordinaire comme li nga wax rek dañuy ñaan képp koo xamante ni yaa ngi seetaan lii boo déggee lii nii nga ñëw jàpp si def sa loxo parce que du ndimbal booy génne mais danga koy def pour sa pour sa ville def ko pour pour Sénégal mais sànq yaa ngi tudd sa benn naataango bu ñu wax Loma Dieye xam naa dama koy dalal rek moom tamit mu wax ma lan mooy euh, lan mooy kiiwam liggéeyam si si wàll wi.

mais mooy lu ñuy wax rek ku yoot moom du saqat voilà et pour vous diir que daal euh, voilà ñu ngi leen di remercier ci loolu baax a baax ñu ngi sant moom alhamdulilah. yow lan mooy sa sa wàll si entreprise récup plastique lan nga fa lan loo fay liggéey loo fay gérer daal. waaw loolu moom daanako ko euh, sawaay wax na ko léegi ndax euh, boo déggee ci ay kàddoom nee na yëngatu na ci du toll ci cinq ans. voilà mu melni mel ni euh, mosusee wolu kenn man dama mosoon xam lool té yalla rek tax. muy débuté projet bi. muy débuté affaire bi bu ñu bolé nak sama benn moment bu baax bolé mak mom ni ko nga fexé ba wo way si ndax dafa melni ni ñaar mën ngeen ànd. voilà bi ma ba dajé ak mom chambre de commerce de Saint-Louis fi fék le président invité woon ma foofu benn forum voilà ñu tok waxtaan si échange si mu wan ma ay pavé. Euh, voilà li ma ko laaj mooy li lan la mun ma pavé la man ko pavé ban matière suuf ciment mun ma noo pavé en plastique euh, ni voilà c'est un fou comme man ah, et que encore euh, ma ni que léegi temps ma réfléchir ci loolu ci jël flyers bi sama voilà am duré un mois xam dama affaire te wax dëgg yàlla vraiment daal xam ni c'est un beau projet biñ ñu ci jokkoowaatee nag ma ni que nag léegi qu'est-ce va faire mun ma en tout cas jën naa lépp teg sa loxo waaw kon nag ku wax loolu euh, mooy que kóolute taxaw na confiance taxaw na voilà ma ni que nag léegi li ñuy def mooy que comme man it dama newoon fii ci dëkk bi euh, am yu ma doon dox ak di ko wax ba ñenn ñi encore yaakaar ni damay politique wala dafa am yeneen yu ma tax a jug waaw léegi nañ dem ci benn logique euh, nañu fexe def le tout. ba une entreprise euh, voilà dina wuyu ñuy def voilà en corrélation ci nañu jël tour man nga ban lañ koy def ma récup plastique euh, juste pour revenir encore ci par rapport ak tout mais en tout cas ci ci def na ma l'administrateur général ci entreprise léegi yan yan yan attente ngeen di xaar par rapport ak euh, par rapport ak autorité Saint-Louis surtout maire Saint-Louis yan yan attente ngeen di xaar par rapport ak moom parce que tamit du du question de ñaan ndimbal du question de tàllal loxo mais yoon la ngeen wane li ngeen di def ñoom it parce que ñoom benn moment ñoom ngeen di dimbali. parce que plastique bi peut-être do nit ñi doonoon ko sànni si ndox yi comme li ma wax sànq si àll yi wala dëkk bi di salte léegi dina am lu mu changé lu bëri yéen la ngeen di xaar su ñoom par rapport ak seen Huawei comme on dit ah mooy ma la waxoon par rapport euh, au nom mooy boo dégager que plastique utile euh, c'est le fait de récupérer massivement les déchets plastiques et les rendre utiles à la population C'est mon nek booy le principe bi ñuy doxee ñun et que ci biir loolu euh, am na ci encore il y a une question de de la gestion des déchets loo xam ni vraiment collectivité territoriale ñom ñoo am mission bob voilà kon ñom ñoo am responsabilité bob mais nak bu fekkee da nga da ngay gëstu tout euh, ci biir code de l'environnement di nga gis que ni parfois amna ci yenn entité privée yo xamni ni mën nañu euh, gérer les déchets euh, te ñun it moy limay wax rek li c'est un projet à haute intensité de la main-d'œuvre locale et que c'est un projet vraiment artisanal écologique mais encore citoyen. Ce euh, dégât citoyen moi que euh, y a une participation active et responsable bu nekk voilà moi que nous faisons récupérer les déchets plastiques parfois sans comprendre, di nga yaakaar que nit ñi moom voilà amuñu benn vision objectif Nous avons li que ni may wax ak yow ti a pas meilleur projet que ça euh, vrai. voilà ce que la wax comme par rapport au non récupérer massivement les déchets plastiques kuy wax waxu récupération di wax waxu euh, voilà réutilisation di wax waxu recyclage kon amna objectif amna na lu la tax euh, que ni dañu bëgg dello Saint-Louis Saint-Louis d'antan et que mbalit mi mëna dañ voilà ci lool nak encore euh, comme ni ko waxé sank euh, personnellement amna ben genre convention bu nu bu nu bu nu bu won bu paré ci lo xamni avec la commune de Saint-Louis et que c'est possible que vraiment ndax avons un département valorisation bu nek fof ñun nous nañ ko et que encore liñu ñu rek que vraiment clou ak le maire et sans politique si sans politique moy idéologie politique politicienne bi di voilà ñun tay c'est une nouvelle approche citoyenne

Euh, objectif yi bari na et que mën nañu assurer le décor de la ville voilà ça mom donc objectif yi nekkul banc yi rek ak jardin public rek amna yenen yenen yu nek yenen projet euh, voilà d'ailleurs ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi wacc hormis programme yoy sax euh yi may waaj ñëw nii am programme yu ñuy wacc mais jusque bu ñu bari dañu yaakaani ni banc rek lañu mëna mën a defar ak plastique am ay pavé euh, voilà bo jógee ci pavé yi am na genre prototype douche publique bu ñuy wàcc boo xam ni. xamante en plastique lay nekk douche publique. douche publique xam dañ koy voilà électrifié ak système lutax sank sànq man la c'est un projet à haute intensité la main d'œuvre locale moy que yalé menuisier tolier ñi ngi ci biir. euh amna nek dal am nga ci wal effectivement ndax douche publique yooyu wala cabine bu fekké da koy installé forcément faut mo am chaise. kon donc plombier faut foofu daf am liguey et que encore euh, barena ay affaire yu ñuy waaj ay table ay chaise. par rapport ak école primaire yi nag moom loolu nag moom beneen affaire la beneen kaa la ndax. waaw laa doon bëgg ñëw sax euh, entité entité privée yi comme hôtel yi restaurant yi comme école yi ni nga wax ba xam di ngeen dugg si école yi aussi di fa installer ay banc pour pour dimbali leen si cour yi affaire yi. effectivement ndax euh, am na ci loo xam ni voilà euh, mën naa ni fruit de réflexion la. à travers l'équipe équipe plastique utile ndax du mam mom rek ndax ñun ñaar ngi fi gis amna ñeneen ño xamni ni voilà gisoo leen ñi ñi ngi ci biir que ni am programme de sensibilisation bu ñu doon sur la yi voilà ci lo xamni ni objectif yi ak résultats yi buñ koy teunk rek da fay melni ñu en tout cas on veut faire participer euh, les élèves ci lolu que la population sax pourquoi pas. effectivement ndax euh, bu fekkee ni ak ben slogan bu ñuy un élève une bouteille plastique que bu nous ciblez ben école exemple la lay jox une école école primaire puis voilà am effectif 800 élèves par exemple si chaque jour élève bu ñëw une a indi bouteille plastique si dure deux semaines ne nañu faire école bi yëpp dóoral leen ci ay banc ba leen ci ay tableau loolu c'est sûr en tout cas programme directeur école yi on ngi lay dégg eh, xam naa loolu dinañ ci sawar euh, léegi dañuy dañuy dañuy delluwaat ci euh, Banda pour euh, moom mu tënkal ñu waxtaan bi rek pour am tamit ay détails yum ñu gën a expliquer. waaw Banda euh, léegi yow ban yéen ban attente wax nga attente bi ngeen am si autorité Ndar yi et tout ça léegi ban attente ngeen di xaar par rapport ak population Saint-Louis puisque seen base fii la pour ñu pour ñu pour ñu jàppale leen ko. Euh, jàppale bu si njëkk mooy lu nu bokk dañ koy pencoo may ngeen occasion ñu pencoo waxtaan ak askanu Ndar li ñu def mooy ñu sàmmal nu ko. ndax euh, bu ñu defaree banc yi bu njëkk mooy nu sàmm ko ndax bu ñu ko defaree pour ñoom la gis nga grande mosquée bii nga xam mi ngi suñu ginnaaw ñun ndar ñëpp xam nañu suñu magu ndar dañu baaxoo bu ñu jógee fajar di dox ci booru dex yi def ay lawraat tey jii banc yi ni ñu ko defee fii moom moo nekk sud aussi bu ñuy njëkk si ndëdd askan wi mooy nu jàppale nu ci loolu sàmmal nu ko ndax ñoom ñoo ko moom ndax première fois la ñu soog a génnee lii euh, liggéey bi des na lu bëri loo xamante ni dañ ko war a def parce que mooy kon li la waxoon dañuy delluwaat tuuti mooy fa moyens ñoo réunirul beneen bi aussi mooy que nii euh, askan wi kenn ku ci nekk boo te doon fëgg ci dënnam ni que dañu dañuy bale ndar mu génn jàpp si ñu bale ndar nan ko bañ def ay affaire comme ni ko suma xarit waxee ay politique politicien parce que ndar doomu ndar moo ko war a mën a defar Sénégal Sénégal sénégalais ñoo ko mën a defar xam nga ab congolais du ñëw fële di defaral suñu dëkk waaw nasaraan bu ñëw fii dërëm mu mu ko fi indi

ndax euh, neexul nag nga dëkk ci dëkk bi am fi cër euh, ñu lay gis ngay gàddu ay mbuus di fori plastique tuddee nañ ma dof lu ñu dañ ko dégg boo demee sama koñ buujumaan lan may wax mais je suis fier mm. parce que buujumaan boobu comme que man buuju naa ba def tey defaru leen di jariñ lu nit ñi di toog dama ciy sant yàlla ban yi aw ma ci dara mais xam nga li ma ci am mooy premier jour bi ma ko monté sud dafa am benn suñu benn papa bu ñëw foofu mi ngi doxee bantam dafa ñëw taxaw ñaanal nu ni doom lii ngeen di def yàlla leen si yàlla ubbil bunt ndax euh, magum ndar doomu ndar lu rafet rek la xam mbalit mi fi nekkoon ngeen jël ko def ko nii kon fu ngeen jublu yàlla na fa yiwu yàlla jublu loolu rek dafa doy parce que àdduna ku yaakaar ni tey jii fi mu toll nii mën nga fi am lu la yàlla joxul da ngay nax sa bopp ñi fi nekk kilifa geeg kilifa réew mi ci kaw moo ci bokk yam bu yàlla tuddee ni ala xaal daan jàppale ñoom mënuñu ci mais bu fekkee jaarul seen loxo it mënuñu ci dara man gëm-gëm boobu laa am marqué suma empreinte fi ma dëkk ndax ndigal laay wéyee dama ci delluwaat muy suma papa Golbert Diagne yàlla na suuf ci kaw amiin léegi am na tamit benn question bu ma la bëggoon posé Euh, nit ñi xam nga dañuy faral di garder ay déchets plastiques seen kër te xam naa am na ñenn ñi sama genre gi bu ñu déggee ni ngay waxee di dinañ si jàpp bu ñu amee plastique sax seen xel dina jëm si yow léegi ku leen bëggoon livrer benn quantité plastique déchet plastique bu nekkoon këram mm, fan nan la mën a def ba ba ba kii leen ba ba indi ko fi ngeen nekk wala am ngeen décharge boo xamante ni fa ngeen koy stocké wala. waaw parce que fi mu toll nii euh, ci biir projet bi daan ko gën a yaatal parce que objectif boobu nga xam ku am plastique ci biir këram. dañu war a am deux camions trois camions wala ay tricycle parce que charrette mënul yëg pont bi pour ñëw ville bu dee charrette mën nañu yëm Pikine Soor mais kon ville bi te moo tax ñuy commencé liggéey ndax moom mooy suñu taaru dëkk léegi ñun fi mu toll nii dañu bëggoon def ak partenariat ak certaines boutiques yoo xamante ni tey jii au lieu que borom kër gi amul xaalis amul lu mu dépassons rus na dem tàllal loxo mais mën na yebal doomam mu dem for 10 kilos 20 kilo 30 kilos après am benn bon boo xamante ni da dem jënd ci boutique yi sutura la. pourtant am na sutura boo xamante ni tey jii mi ngi liggéey te. sonn ci sonn ci. mi mi ngi jëriñ. waaw kon mbalit mi li ko fiy jëlee mooy def ci dërëm président def na lu mu man mais fi muy jaar xëy na peut-être ñoom ñi ngi def mais accès gul si ñun mais xam-xam bi fi jëlee mbalit mi mi ngi nii tegu fii parce que résultat yaa ngi nii citoyens yi war nañ ci bénéficier wu. parce que ndimbal da cay fekk loxol borom maanaam ki ngay dimbali da nga koy fekk ci biir këram noo koy fekk ci biir këram ah boo defee lii askan bi jox réew mi jox la lii xam nga tey ñaata boutique ñoo fi nekk quartier Sénégal rëy na rëyul mais bu ñu amee presque lu tolloog 10 points de collecte yoo xamante ni fa la ñuy stocké de jour au lendemain camions yi wala tricycle dañuy ñëw di di navette jeunes yi nga xamante ni tey ji comme nawetaan yi wër di ket di tànqal nit ñi. non mais nan dem fori plastique pesé ko nu fay leen. même même plage yi pourquoi pas ñuy créer maître nageur yi bu dee ñoo may dégg ay jeux yoo xamante ni genre kermesse lay nekk dañuy foloo xale yi di leen ramasser loo ay ay sachet def ko ci mbuus boo ñëwee ñu nga nga am loo gagné tàngal bonbon wala truc du genre après yéen ngeen ñëw ngeen ñëw récolter ko pourquoi pas tous ces choses. mais yéen journalistes da ngeen graaw ah hein? parce que dafa mel ni da ngeen yërdu suñu projet yi hein? parce que suñu suñu objectif rek ngay wax parce que man mi di toog di wax ak yooyu je suis maître def naa ko pendant presque boo xoolee depuis 2004 euh, deux ans laa liggéey ak maire bi pour salaire mais après dama ko def bénévolement parce que comme koy maa ngi doon suturlu feneen. te samay rakk samay jarbaat nooy ñëw ci géej gi yàlla may na ma mën naa ndox xam naa ndox servir dëkk yu bari et pourquoi pas ma ñëw servir boo xoolee chaque 15 août maître yi fi nekk maanaam euh, émission yi ñuy def pratiquement man la ñuy interviewé parce que samay waay lan ñoom it ñu ngi ci biir projet bi mais xam nga daanu dafa dajul fépp parce que petit à petit l'oiseau fait son nid kon branche par branche lay doon léegi nag fi mu toll nii li nga wax li moo projet bi ci kermesse yi ni ngi ci def ay action yu bëri après loolu maa dina ko gën a éclaircir si projet yi nga xamante ni man ñun waxtaan nañ ci tënk nañ ko teg ko ni ngi koy def pas à pas bu dul woon mbas mi nee naa la heure bi kon déggaat noonu beneen affaire fi as mais nag nan ko nangoo ni yàlla ak dogal pexem jaam ak pexem yàlla ak dogalam. léegi euh, yow lan ngay tàggoo ak Saint-Louisiens yi ak lan ngay wax ndar-ndar yi. Euh, li may tàggoo ak ñoom. duma def lul dul dellu si waat bu pare sant len geureum len ndax ko ndar fierté la ci Sénégal kon doomu ndar fierté la ci Sénégal ci ku xam bopam parce que bala nga koy xam nga génn ndar ni ndar la dëkk boy teureuf teureuf yi sax ñu fat la parce que xam nga lutax suñu sunu ka fi ji kilifa yi wax Sénégal yépp jaar nañ fi kon yalla daf nu beral loxo kon sunu papa yek sunu magi ñi fi nekk. Eh, yalla len fi yalla bayyi ndax wayu coon sek bobu nan na jeun yu magi jeex na yabo yofi dess des ah mais dese na nag ay di ngot ak coof ak ak warañ des na fi de <laughs> ah, loolu timit ni eh, ngi ñaan yalla yalla bayyi len fi nu gungeenu ba ci kanam projet bi kep ku ci mën japp nu japp ci yeen aussi wa Saint-Louis TV ngandi ay jeunes yu ambitieux parce que li tax ma waxan ka sànq li ngeen def ak man ñi ko bëggoon bari na mais tay suma ma leen ko nongulé dafa doon lo xamanteni pour ñu and defar Ndar parce que war tol bi numu mu rek buma ma ci war bi ngeen nekk ci war wale ah kilifa yi tamit nekk ci war wale ñu def ci ak soti la pour nu mëna dajé avancer ndar defee ndar taru ndar set nit ñi gëna sawar ñew ndar ñi dëkk ndar gëna parce que li tax ma wax loolu dam ko tek fi wóor parce que 6 mois ak 500 bancs publics plastique d'autre fi dess parce que bo xolé 10 bancs yi di jël 3 tonnes plus de 600 bancs plus de 600 bancs. non collecte bi aussi jeunes yaa ngi fi liggéey liggéeyinu ASC yaa ngi fi quartier boo dem ñaata ASC fa nekk. bari na waaw mais yaa ngi doon ñëw nañ leen dem approché leen ñu liggéey ñoom di sant aussi waa la conseil quartier bu sud waa Gandon ban yi ña fa waa Paal ban yi ña fa waa Gandiol aussi ña nga fa ñooñu ñëpp ci ndimbalu ARD du ma sëkk jëf fu ma buñ ma wanee tey yàlla ak waa ARD Saint-Louis la man ndaw le directeur Idrissa ak ñu fay liggéey ak yéen waa Saint-Louis TV ak ñi ànd ak waa l'équipe plastique utile rawat na suma neveu bi nga xam mi ngi dakaar moom moo géré lépp loo xamante ne mooy informatique bi waroon na ñëw mais dama ni ko garaawul bàyyi ba beneen ndax yoon yamul ci ben xamna daan defaat yeneen yu gëna yaa inshallah day am ça allez kon je vous remercie merci. Euh, ñun aussi ñoo ngi lay remercier waat bu baax baax ci nangu bi ñun nangu defal émission bi en plus mu nekk exclusivité si suñu chaîne bi mbokk yi tay li ñen leen indiloon ci seen émission nan ko waxtaanee euh, di leen jox dig daje rek du yag dara ci seen benen numéro bu seen émission nan ko waxtaanee merci à vous.